noo leen di may li ci yéene yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen bu ma amoon baat bu jéggi baatub jéggi dayoo dama koy jël joggi ci ngir tënkal leen xibaar bi journal La Tribune xëy ak ñun ubbil yéene kaay bi ñaari accident yu métti ñoo am démb ci réew mi benn ci géej gi benn ci jéeri ji yéene kaay nañu boo boolee li faatu ci ñaari accident yi toll nañu ci juróom-ñetti doomi li ci jële ay gaañu gaañu mat nañu juróom fukk ak lu teg journal bi teg ci di ñu tegal ni mbir yee demee juróomi doomi aadama yu bokk benn famille ñoo des ci tali bi ci accident bu am ci yoonu Gossas wi ñaari ñaari xale yu jigéen faatu ci ak gaal gu suux ca Kafountine ak benn directeur école bu watab set place fil mu faatu ca jawbe libération nañu làll koli ak mareetu maane ñooy ñaari xale yu jigéen yi ñàkk seen bakkan ci gaal ga suux ca Kafountine gaal ga équipe football bu ASC Kerwan la yeboon ak seeni supporter ñu waroon a dem football yi far gaal ga ñu duggoon suux ca Île des Carottes ga ca Kafountine ba ñaar ci supporter yi woon ca gaal ga ñàkk ci seen bakkan Cheikh Niass di waa ji ñàkk bakkanam bu yàggul ca kasu bu Cap Manuel l'observateur ci moom la moom dem si yàlla Cheikh Niass yéenekaay bi mi ngi ñuy wax lii ko andi woon Sénégal màggalu Tuubaa gi mu doon wàcc ni ko takk der yi arrêté ngir doon ko contrôle ci kaw tali bi ba ni mu mujjee ci ak jàkk yooyu yëpp journal bi xëy na diñu ko nittali yaayam di aram ci am tiis ak xol bu naqari bi muy dund ak i ronxañam yu feragul yi mu ko booleel waa l'observateur seeti woon nañu ko démb ci ngoon tey ci suba journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ci politique bi doo rek ak Sud Quotidien mi bind ne lu jëm ci élection locale yi déwén ñi tey ci ajuma ji ci lañ a ubbi wéeku ci waa Benno Bokk Yaakaar Le Quotidien xamal nañu ne sagara ngay xeeñ ci seen biir ne responsable yi Benno yi ci xeex bu metti la ñu nekk ngir bëgg a jiite maire yi gën a mag ci réew mi muy ville yi di Kees Dakar Fatick Ndar Ziguinchor Kaffrine diiwaan yi bokk na ci diiwaan yi ñu gën a teg ay gët Yewwi Askan Wi di coalition ñoom xalifa Sall bi Vox Populi nee nañu ma ngay gën di yaatal ak langam am na fukki parti politique ak benn yu yees yu leen fekki démb ñoom waa coalition Yewwi Askan Wi journal bi nañu seeni pexe moo di gagné ak candidat bu doon wala parti bu mu mën di bokk ndax li ñu gis moo amee ni ñu ko bëggee législatif yi di ñëw du leen doyum ga lax ndiku journal lañ fa dolli ñu ci ne kii di Xalifa Sall mi ngi lawal ay banqaasam di gën di yaatal baasam kàdduy Déthié Fall ci xët bu njëkk yéenekaay bi mu wax ne fan yi di ñëw dinañu gisaat ñeneen ñu fabu ñëw fekki coalition Yewwi Askan Wi Walf Quotidien nañu waaye ñoom waaye Yewwi Askan Wi Bamba Fall mi ñu tànn def ko point focal ca Médina ñu bari ànd ci ñu ànd dem ci Enquête élection baa ngi ne cocc boole ko ki taxaw jonn wutali local yi 2022 yi li ko tax a dëgër enquête gis ne ci taxaw taxawaayu président Macky Sall mi ko jiite la Dame Diop mi jiite ministère emploi formation professionnelle journal Le Témoin nee nañu la mu nekk ci ministère ba amul fenn tuba yi paate képp ci boole le ministre daam Diop di doxal ci ministère ba li mu dëkk ca bawal moo tax ci ministère am ba ay bawal bawal rek la fa yóbbu Dame Diop dafa bawaliser ministère emploi ak formation professionnelle ne mbooleem direction ya fa nekk ba ci agence yi banqaaso ministère ba ay bawal bawal la ko jox ñu jiite ko mbaa bokk commencé wiir ca bawal libération nañu koy jooy yorin wu bonte ñaaw ba yegg ca agence de construction des bâtiments et édifices publics fa ngay dëppe bambula ak noos ak ndaataatalax yéenekaay bi nee nañu moo am ci agence de construction des bâtiments et édifices publics njiit la directeur général ba di Hamadi Dieng moo fa tànn ñetti cadre di leen jox ndàmpaay di indemnité individuelle ak mensuelle yu toll ci million bu manqué ñeent fukki junni maanaam huit cent mille francs CFA kenn ku ci nekk te ba muy jël dogalub def loolee amu ci autorisation bu su kër ga. bakkanam ca prison bu Cap Manuel njabootam la ñu bëgg mooy yoon def liggéeyam ba dëgg daal di feeñ ñu ne xaar résultat bu war a joxe ci lii di autopsie bi ngir yëf daal ñu xam fan la féete octobre rose tey ji nag ñuy tàmbale ba njeextalu weer bi nag lii di ñaax lépp lu dem ci xeex lii di cancer du sein maanaam jàngoro boobu di dal eh, soxna yi ci seen wen tey nag la ñu wax tàmbalee activité ci ajuma ji ubbitëb lekkool fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi ñu dëgmal ñeel élèves yi nag waaye nag kilifa yi mim réew fexe daal bay di waajal yëf yi li amoon daal daaw maanaam di fitnal ñii di jàngalekat yi euh, ci élèves yi daal la bëgg mu daal di dakk waral nag ñu daal di tàmbali série activité ba daal ñii di élèves yi xam ne violence mu dootul am ci ñii di enseignants yi ñaaral pàcc xibaar tàggatam dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne yéen a kaay Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam may sàmbay ci digital bi asalaamaaleykum dal leen jàmm faatu kii di Cheikh Niass ca prison bu Cap Manuel njabootam bëgg dëgg dal di feeñ ñu na xaar résultat bu war a jóge ci autopsie bi waaye nag ñi ko jege ne yëf yi daal dafa lëndëm euh, te sax euh, dañoo jël ñii di seeni i avocat ngir ñu leeral yëf yi Cheikh Niass nag buñ sukkandikoo ba tey ci njabootam ne bañ koy euh, te amuloon carte grise waral nag ñàkk déggoo am digganteem ab digganteem. ak kii di policier bi daal ci bañ koy arrêté ba koy yóbbu foofu ca prison leeraleeg ndongo Khadija Niass ñaar fukki at ak juróom-ñaar rangoon ñi nag ba léegi nekk ci bët yi moom ndaw si di jooy ba léegi nag magam bu góor bi di Cheikh Niass te daal dee ñàkk bakkanam niki àllarba ji wees ci prison bu Cap Manuel. metti na lool man moom dem si yàlla si nekkoon nag ci mandat de ni ki semaine bii nu génn rakkam ju jigéen ji ni anam yi mu faatoo nag daal nay tey xel. nañu teg lépp ci yoon. te yoon bu mu bàyyi dara. njabootu moodu moodu bi ni faaw nag dañuy wut ay avocat ndax mbir mi faaw mu ñu xam nag lu ciy sa responsabilité. ndax dañuy def autopsie dana leer de dafay leer. Cheikh Niass rakkam ju jigéen ji ni bi ni koy teg loxo fekk nag moo doon dawal wotoom àndoon nag ak doomam bu góor bi ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñaar mu nekkoon nag ab contrôle routier bu policier yi doon amal nag ci alxamis jooju bu nu sukkandikoo ci ndaw si. fekk muy dem di retiré ji xaalis pour ñëw préparer dem màggali ak ñi nga xamante ne nii chaque at da leen di jox paasu màggal mu laaj ko kayit gi kàttan mu ne da ko fàtte kër ko mu ne mënuma la ko jox noonu nga yóbbu ko ndax carte grise oto warul tax li yëpp ñu def ko ci oto baa ngi fi ñu téye Volvo la bu noir 44 moo ko indaale woon daaw Cheikh Niass ay atam toll woon ci fanweer ak juróom-ñeent juddoo woon nag ci réewum Gambie lenn ci ndawam mu amalee ko ci ngi ci njaago nekk ci diwaanu Saloum gannaaw gi la njabootam nag daal di tuxu si fii ci Ndakaaru bu ñu ñëwee Dakar booba metti woon nañuy dugg ko daanu di luyee ba yàlla dimbali ko mu tukki rakkam ju jigéen ji dolli ci ni bi nag li mu njëkk a xalaat moo di utal nag takk nag tey ji benn doom bu góor nag bi mu amoon. benn doom bu góor mu takk ndigam jëlee ci luyaas fajal bu bi gàcce lu bare ñu def ko nii métti ñaaw na. ca France Cheikh Niass daal di fay bàyyi jabar ak ñaari doom jabar jooju sax ñu ni war naa agsi nag fii ci ndakaaru fii ak waxtu wi dëgmal nongaka yëmbal noor rajo Futur Media. ak RFM ñu waxtaanee lii di wërgu yaram plateau technique boo xam ne dafa dal doy waar ni ñu jëlee en charge ñi amee euh, jàngoro ci jigéen ñi nag waral nag ba kuréel bu ci taxaw dal bëgg nguur gi taxawu leen jàppaleen octobre rose nag di ab weer boo xam ne weeru octobre bi la moom lañ koy jagleel jarale ko ci ay ñaax ba daal fexe ba taxawu ñi amee boobule jàngoro di cancer du sein démb nag waxtaan yi amoon na fii ci Ndakaar demoon na fekk ko Salimata Aw octobre rose di weer bi nga xamante ni dañ koo jagleel ñaax gi wante itam dimbale ñiy dund ak feebaru cancer association cancer du sein Sénégal taxaw fëgg ci table bi di wax soxla yi bari na maam Diarra Gueye Kébé moo ko jiite. cri du cœur bi ñuy lancé moo di que suñu mbébét mooy loolee ñuy wax anatomopathologie loo xam ne la mënul ñàkk si traitement ndox mi si biir si bul bi yóbbu ko ñu saytu ko xool ko mooy carte d'identité feebar bi muy biopsie si loolu la docteur yi di sukkandiku pour xam nan la lay fajee te loolu tamit tey ñu ngi koy jooytu ndax tey euh, hôpital boo déposé biopsie di nga xaar lu mu néew ne weeru yàlla pour mën a am résultat yi ndax yëpp a manqué foofu. fexe ba plateau technique bi ñu war a am maanaam lu jëm ci wàllum paj gi yoon la wante itam gunge malaat yi mënta xaar. cancer dafa nekk feebar boo xam ne. kenn mënoo koo comme ni ma ko waxee docteur mënoo ñëw docteur si docteur rek ne ko docteur dama am benn bul sa doon de sama biir ween mu ne la yow danga nga il faut mu ne la nga dem defi mammographie juróom benn junni. da ngay defaale tamit immunohistochimie. loolu yëpp boo ko xaymaa yaakaar naa ne dana jege. juróom-ñetti fukki junni wala juróom-ñeenti fukki junni. la dooleem dafa néew est-ce que mën na ko fajoo est que mën na ko def. ñu ko sogaan nag ñu ne la danga nga ñu ne la may nañ la chimiothérapie bi dafa am loo xam ne tamit xel nanguwu ko. association CS2 moom nag fas yéene dugg ci biir dëkk bi di def ay dépistage gratuit wante itam di jaay ay calendrier yu ni mel ngir mën a dimbale malaat yi nga xamante ni dañoo dagg yenn ci seen cër ngir ñu mën koo amaat jotaat. jotaat seen dignité. ñu wutali Foundiougne comité développement sanitaire bu centre de santé ba nag di yëglu bâtiment boobee nag nga xam ne euh, fa la fajukaay bi ne dafa ràpp ba daal ñu ragal ne ku mel mu daal di daanu ndax fa la jëm nañu wax euh, fa mu sax gën a mooy maternité ba dañ ko fa sax jële yóbbu yóbbu fa yóbbu euh, yóbbu ko feneen wara nag ba suñu ndaw foofee di Aminata Goudiaby dem na seeti secrétaire exécutif bi ak tam trésorier bu boobu les centres de développement ñu déglu rapport reportage am téléphone portable am la yor moom trésorier général bu comité développement sanitaire bu centre de santé bu Foundiougne di ñu wan image yu maternité bi ab bâtiment la boo xam ne daanaka ku moyul léegi mu màbb ndaxte foo xool rek am na ay fissures Ibrahima Biteye Ndiaye. foofee ba gis nañ ne bâtiment bi foofu noonu dafa commencé daanu ba loolu amee nag préfet bi ñëw na ànd ceeg maire bi ñu daal di tëj maternité boobu noonu pour xool naka la def ba mun a réfectionner defaraat foofee di maternité boobu noonu. nee mel daanaka centre de santé bi yëpp dañ ko war a defaraat ndaxte bâtiment bi fi mu ne baaxatul. bâtiment bi yëpp baaxul di ko delle ci kaw ba ci suuf ci kaw dafay senn déjà bu tawee day gis ne dafay senn même bi day gis ne parfois ci suuf day am courant ci kaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee foofu mbir mi yëngal na leen bu yàggul dara sax def nañu ab délégation dem visiter ji centre de santé bi. préfet bi ñëw na ànd ceeg maire bi brigade beeg sapeur pompier Senelec ak Seneweb ñëw xool situation bâtiment bi yëpp am problème. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy askanu Foundiougne ak itam li ko wër nga xam ne ñu ci ëpp ci centre de santé boobu la ñëw di faju ñoom ñoo di waa comité de développement sanitaire bi dañu jàpp ne dañu war dugal seen loxo ci liy defaraat centre de santé bi Ousmane Ndiaye moom mooy secrétaire exécutif adjoint bu comité de développement sanitaire bi. parce que santé compétence transférée la. tey boo demee feneen ak feneen waaye ci yeneen jafe-jafe yi mu am ñàkkum personnel qualifié ndaxte nee ñu anesthésiste ba fa nekkoon ak itam dentiste bi dañ leen a affecté te ba léegi amaguñu. muy amal la tournée comité développement. Euh, wala comité départemental bu développement di euh, CRD nag jot na am ni ki démb ca préfet euh, préfecture bu Tivaouane ñu nag jël bépp daal jéego ngir fexe daal ba xew-xew diine boobee am waaye tamit def ko daal ci moytu lépp luy lawal lii di mbas mi Cheikh Anta di ab CDD boo xamante jagleeloon nañ ko nag waajal gàmmuk Njaasaan dajale woon ak chef service yi nekk ci département bu Tivaouane ak comité d'organisation bu jóge woon Njaasaan daanaka waxtaane nañ lu yaatu ci li nga xamante ni moom la ñu fas yéene taxawal ngir nag ñu am gàmm gu mucc ayib ren jii préfet bu Tivaouane di Mamadou Gueye. te leen lu ñu tamit taxaw nañ ci càmbar ko jox ko àq ji mu laaj service yi nga xam ne tam ñoo ko gàlloo tam kenn ku ne jël nga ay engagement yoo xam la parce que dama leen waaye di jël na fekk ne mu gëm ne mën na ko kon ku nekk la nga mën na nga ko wax fa nga mën a yem waxal ni fii laa mën a yem ñu wuti ko ci këla yilif kii di Mouhamed Babou di wax ci turu porte bu xalif général bu Ndiassane. di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp wone nañ ni Ndiassane rek moomu ko jullit yëpp ko moom xalifa bi mu ngi ñaan lépp lu ñu ko defal nañ ko yokk ndax njaboot gi dafay gën di yokk mbooloo mi gën di yokk mu ngi xaarit mboolem kilifa yi nekk ci gouvernement bi seen ndimbal. lu jëm nag ci wàllu nag taxawaay bi ñu war a am nag ndéem jàngoro ji mi ngi wàcc waaye nag fexe nag ba jàngoro ji ñiy ñëw Ndiassane gën a jàngoro lieutenant Ismaïla Diagne chef de la brigade d'hygiène Tivaouane def nañu ay sorties yu bëri ci dëkk bi di sensibiliser nit ñi ñu xam ni bu ñuy dégg nañu tant de yu wàññeeku rek nit ñi dañu war a bàyyeeku tey la ñu war a gën a jël matuwaay yi. Ndiassane nag dina dalal nag ay taalibe yu bëri jóge nag ci réew mi ba ci bitim réew préfet bi ne lépp lu ñu mën de ñu ko def ngir ñu mën a amal ren ji gàmmu Ndiassane gu mucc ayib RFM Thiès Cheikh Anta Diop. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. tàgg ko tàmbaleeg euh, qualification ca mondial ca Qatar waaw Sénégal nag danañ ci daal di sóobu ci troisième ak quatrième euh, journée danañ tase ak Namibie ñaari yoon benn bi fii ba ca des ci Afrique du Sud foofu la Namibie di di dalal Sénégal gannaaw ba ñu suspendre li xam ne daal moo di seen stade bi ndax euh, matewul ngir mën a recevoir li nga xam ne moo di googale compétition waaye tey gi kii di Aliou Cissé di yi nga xamante ni daal ñoom la daal di tànn ngir ñu taawal di teewal Sénégal ci yooyu lay jogante ñu njort ni googu la ki nga xamante ni moo di Cheikh Bamba Dieng nekk ci Olympique bu Marseille ak Bouna Sarr nekk ca Bayern de Munich boo moyul danañ ca bokk bu loolu weesoo ñu daal waxtaane ba tey wàllu football ak lii di Ligue Europa jàppale nag euh, nit ki démb amoon na ay jogante yu ñu doon amal euh, ci euh, Lyon bu France moom dafa daal di mujj am ndam ñett ci dara ci diggante ak ñi waa Buxon bi Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom dañoo mujj ñàkk ñetti bal ci ñaar ci match bu doxoon seen diggante ak Spartak Moscou ci Moscou ko doon amal ñoo nekk seen bi di Rui dañu ko daal kon bokk jox ak carton rouge ci première Cissé ak Ousseynou Ba jot nañoo fubal ca défense ba euh, ba tey ci yooyu lay jogante jàppale ni tamit ñi nga xam te ne ñu di wàllu Louga Reds bu Stéphane Batchi ñoom étoile rouge bu Belgrade moo mujj daan benn bal ci dara Vitesse Arnhem ak Rennes dañoo daal di match nul un but partout Alfred Gomis mu nga woon ca camp wu équipe bii di Rennes Olympique bu Marseille moom dafa daal di match nul zéro but partout. digg mag doomu Turquie di waa Galatasaray eh, ki nga xam te moo di Cheikh Bamba Dieng moom jot naa football laata ñu koy génne Mbaye Diagne moom itam ci njeexitalu jogante gi la jot a dugg ànd ak équipe am boobule di Galatasaray Lazio bu Rome ak Lokomotiv bu Moscou 2 eh, ñaari bal kon bokk eh, ci dara seen diggante rek doomu Moscou di waa Lokomotiv ñu daal dellu suñu réew waxtaane wàllum box ndax bëriwul nag lu ñu koy daal di wax la ko waral moo di daanaka dañoo daal di toog lu toll ak fanweeri at ak juróom-ñaari nga xam te ni amuluñu championnat national bu box ren ji nag jot nañ ko organisé ba toll nañ sax si final gi ñoom nee nañ ci weeru décembre incha allah la ñu fas yéene kon bokk amal yooyu le final ci cadre directeur technique national adjoint di Malick Niang ñu déglu ko ci micro Mohamed Chou Diop. Ah, li na xam ndax euh, li boxeur doon xaar mooy compétition ndax fanweer ak juróom-ñett ngi championnat amul te bu bees bi teg nañ championnat bi c'est-à-dire nañ ko ba muy dox ba ñu am fukki journée fukki journée ak juróom. waaw léegi compétir nañ ba pare te gis nañ vraiment xale yi wane nañu euh, njàmbarte wane nañu technique wane nañu physique ba pare gis nañ niveau bi tamit amélioré na bu baax a baax baax a baax a baax a baax ci constat bi ñu def waaw léegi nag li ci des mooy ñu waajal final bi incha allah war a nekk mi décembre arène nationale te mbébét bi am mooy au moins euh, ñu remplir stade euh, arène nationale bi bi nga xam ne quinze mille places pour final yi war a ñëw waaw léegi nag loolu moo xam ne dafi nekkagul sur place te kontaan nañ trop tamit ci taxawaay boxeurs yi ak niveau bi wane ak njàmbaar gi ñu wane ak euh, courage bi dévouement bi ak technicité bi nga xam ne indi nañ ko ci championnat bi ndax am nañ préparation bu doy championnat bi mën a rouler xam nga leen manqué woon mooy compétition te actuellement loolu am nañ ko ndax championnat baa ngi leen tamit euh, ñuy wax tamit ñëpp ñu ngi lancé appel ñëpp ñu waajal final yi mi décembre incha allah rabbi ci atum 2026 euh, le Sénégal fas yéene organiser Jeux olympiques de la jeunesse ñoom nag ñu ngi ci wàccaay gi ci yoon googu la sax dañoo daal di lëkkaloo ak comité olympique euh, bu France di waajal ñoom i tamit li nga xam te ni moo di Jeux olympiques ci atum 2024 jàll ko ci kuréel bi nga xam te ñu ngi ko tuddee ne ci mbir moom la sax ñoom ñu ngi koy bu baax a baax ba tax na laata ñuy daal di yegg ci atum 2026 la moo di dugal wàllu Jeux olympiques ci école yi ngir bu ko daal defee ñu mën ko amal ci anam yi nga xam te daal moom lañ ko daal di bëgg tàggat gune yi loolu moo di eh, kaddu coordonnateur Jeux olympiques de la jeunesse atum 2026 di Dakar 2026 Ibrahima Wade ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. leneen li mooy tam ci wàllu euh, nan la defee ba ndaw ñi euh, lancer des campagnes pour impliquer la jeunesse ci fànn boobu comme am na loo xam ne nas nañ ko ñu euh, organiser à partir de 2022 li ñuy wax les Jeux olympiques à l'école maanaam dem ci école yu ndaw yi ñu tout tànk yi fexe ba boole xale yi defar organiser leen yëpp léegi nag fii ba 2026 ñu dawal loolu. président Ndiagne Ndiaye aussi nga xam mooy président comité d'organisation bi am na aussi programme bu mu nas pour wër fépp ci Sénégal réew mi yëpp def euh, li wax les caravanes JOJ. fu nekk ñu dem fa expliquer jeux yi mooy lan expliquer sport na mooy lan ak sport nan la amee njariñ ci ci ci ci santé nit ñi ak ci ci comment dirais ci njëriñu askan ci askan bi donc loolu mooy li nga xam ni ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ci wàllu marketing bi maanaam ñi nga xam ni moom la ñuy jaay produit bi commencé nañ ko am nañu partenaires yoo xam ni bu ñu signé ci fan yi benn document ak waa comité international olympique di ngeen gis ni dinañ annoncé nos premiers premier partenaire marketing bi parce que waxtaan nañu lu bëre ak ñu bëre pare nañu am na sax ñoo xam ne xaw nañu signé mais dañ ko mënagul fësal parce que dafa am laaj ba noppi mu laaj mooy dañuy yoon li ñuy wax accord cadre de marketing dañ ko négocier ak CIO e bu ñu ko signé ba noppi nag door a xam li produit bi ñuy jaay.